waaw man la Cheikh Fam man maay secretaire général de la Guelewar. bon avant tout dañuy permettre ñu remercier déjà euh, Thiès 24 n'est-ce pas là aussi gis nañ gis nañu aussi engagement bi ngeen am au niveau de Thiès surtout ci mouvement sport bi loolu ah, ah, loolu aussi ñëw lañ ci remercier bu baax. voilà loolu comme li ñu ci wax moo ci nekk boo xoolee Daaru Salaam ñoom ñoo nekk su la pression parce que ñoom ñoo njëkk a génn wax. ñun ñoo ngi préparé suñuy demi-finale calmement Daaru Salaam c'est une page tournée loolu kenn waxatu ci suñuy demi-finale contre Argos la ñuy préparé. pour jéey ji yow mi fa demoon man sax j'ai une question parce que ñoom nee nañ policiers yi dañ leen a lancé ay fumigènes. ci li ñu wax voilà ñoom ci li ñu wax. policiers aussi les policiers leur rôle c'est quoi c'est le maintien de l'ordre et de la paix dans un premier temps ñoom dañuy employer ay méthodes. perturbation bu amee au niveau des grands D ñoom li ñuy njëkk def mooy dem détecter le responsable essayer ko wàcce képp kuy dem stade loolu da nga koy gis maintenant si ça continue à dégénérer ci la ñuy utiliser des fumigènes la question yi bu ñu leen waroon a mooy lan ñoom nee nañ policiers dañ leen a lancé ay fumigènes lan moo tax policiers di leen lancé ay fumigènes te ñun waa ASC Guelwaar policiers yi lancé wuñu ay fumigènes loolu c'était une question bi nga xam ne ñoom dañ parce que policiers yi ñoom xam nañ ni en principe ñoom ñoo doon déconné ñoom ñoo doon perturbé raison de plus ñu leen doon lancer ay fumigène là aussi ñoom seen gradé dañoo wàcce woon ñëpp ñun les supporters de l'ASC Guelwaar ñu suñu gradé kenn wàccewu ko loolu rek mën na justifier lépp te ñun aussi dañoo am ay kilifa suñu kilifa dañuy wax ni comme que le dossier est en cours au niveau de l'ODCAV ñoom nañ ci tranché avec responsabilité donc ñun comme ni ma la wax moo ci nekk day nekk une phase tournée moo tax damay dégg damay dellusiwaat samay cadre rek ñoom ñoo nekk sous la pression parce que ñoom dañ leen mën a 1-0 policiers yi dàq la ñu nekk ñu nekk di dàqante ak policiers yi. ODCAV jël dossier war ci tranché ñuy wër fu nekk di wax. pour nekk waaw waaw ñoom laa wax quoi boo pas de vous. mais de waa Daaru ñoom ñooy wër di wax bëgg a def médiation n'est-ce pas au niveau des médias et tout ça. donc ñoom loolu ñoom la concerné. parce que ñoom ñoo ci des. ñun gagné nañ leen ñoo ngi préparé suñuy demi-finale contre Arcos. ñan ñoo xeex ñoom ñoo doon déconné. policier di leen dàq ñuy sànnante ak ñoom ay xeer lañ lan moo ci yoonu Guelwaar en fait raison de plus aussi suñuy responsable nañu dossier bi comme que moo ngi en au niveau de l'ODCAV ODCAV dina jël ses responsabilités tranché si donc ñun ñun pare nañ ci passe boobu passe daaw c'est une passe tournée comme que ñoom ñoo doon sànni ay xeer aussi ñun amoon nañ ci ay blessés au niveau de notre quartier ñooñu dem nañ hôpital ñu ci war a pansement et tout ça defal defal nañ leen te ñu supporter ñoo xam ni ñoo ñoom ñoo bokk même quartier bi donc nous sommes obligés euh, ci guddi gi noonu ñu dem fëgg ñi xam ne ay infirmier lañ au niveau du quartier ñu ci mën a faj ñu faj leen boo xam loolu structure boo gis day am euh, ay niveau supérieur niveau supérieur bi je pense au niveau de la zone et de l'ODCAV am na des décisions yi nga xam te ni ñoom ñoo koy jël et je me dis que ñoom ñoo ngi ciy liggéey parce que en principe pratique ay xeex et tout ça ODCAV jël nañ ci ay décision daaneel ci ay équipes yu mag là aussi équipe ci topp yëpp ñoo ngi suivre loolu peut-être lii dina leen permetre ba la prochaine fois ces genre match là bu amee service d'ordre bi dina bëri ba ces éventuels là ñu ko éviter à raison de plus ku xeex ODCAV sanctionné la sévèrement te loolu la xaar ci moom sur sur sur ce dossier là mm. bu ko defee peut-être yeneen équipe bi nga xamante ne am nañ tendance ñu leen di mëne ñu ñëw di ay match il se pourrait que il se pourrait am te fois l'année ñoom ñoo toj Massif ñoo leen mu ne 1-0 ñu toj ko les années am na beneen année aussi série planti yeggul ñun ak ñoom après ñoom lañ mujjee daaneel donc lii c'est pas la première fois pour eux. xam nga au niveau de la zone aussi euh, du ma ni au niveau de la zone sax mais au niveau de Thiès ñëpp xam nañu Guelwaar kenn dootu ko présenté ñun équipe bu mag lañ donc équipe. daa mag la. mais mais mënul nekk équipe mag gën a nekk Guelwaar équipe mag. <laughs> voilà ñoom xam nañ ko. xam man ba tey waxuguma Darou Salaam équipe bu mag la. ñoom bi ñu leen dékkee micro la lañ wax Guelwaar équipe mag la ñoom nangul nañ ñun équipe bu mag lañ ñun dañuy nangu ni ñoom équipe bu ndaw lañ. voilà raison de plus aussi Guelwaar équipe bi mu am tendance di di di jouer fukk ngay ñëwee. ñun loolu dèjà ñu dañ ci préparé wu. fukk ngay ñëwee mënoo ci dara. d'ailleurs même match bi ngay def sa me ñoom seen i meilleur match yëpp mooy match bi ñuy def contre Guelwaar buñ ci jógee bu ñu amaatee boo leen seetaanee je parle dans le cadre général je ne parle pas de Daaru je parle dans le cadre général pour les autres équipes boo leen gisaatee da nga ne da ngay jàpp ni équipe moo mhm. mhm. mooy créer des étincelles ah. euh, comme xam leen dafa am ay niveau supérieur mhm. ODCAV moom moo def saisine daal di arrêté toute compétition au niveau de la zone cinq a parce que là aussi ce sont des problèmes un peu récurrents yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ko ci doon constaté. voilà xam naa loolu tax aussi ñu jël ci décision. bi moo ngi fa ñoom tamit na yeneen équipe yoo xamante ni ñoom ils ne sont pas concernés. Mhm. peut-être par rapport à ça aussi ñoom nañ ci génne une décision bi nga xamante ni dina arrangé ñëpp. message bi dama koy lancer waa sama waa koñ rek comme que cette fois-ci am nañ engagement coupe maire bi ñu fi teg. kenn du ko natable rek Gelwaar moo ko jël donc ñu poursuivre suñu yoon euh, supporters yi ñëpp a ñëw jàppaat les bonnes volontés aussi à chaque fois maa ngi am na ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaaw di di di di dooleel équipe bi là aussi ne ñëpp jàpp xam ne cette fois ci moom ñun on aller loin mais ay quart de finale yi moom c'est derrière nous.